والجمعيات الإسلامية وقادة المريدية زيادة وشير الداخلية ممثل رئيس الجمهورية والوفد المرافق أصحاب السعادة السفراء وعداء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالسنغال أيها الإخوة المسلمون والمريدون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد فيسعدني an uwajjiha ilaykum bismi samahati alxalifati cheikh Mouhamadul Muntaxa xafidahu llahu taala wa zaada min nasrihi wa tamkinihi haadihi alkalima fi ixtitaami faaliyat alixtifali bilmagal li haadihi sana ihda wa arbain wa arbamia wa alf wa tatadammanu alkalima awalan shukran jazilan muwajjahan ilaykum أيها الإخوة والأحباء على الحضور المشرف والمشاركة الإيجابية في هذا في هذا الحدث الديني الثقافي الاجتماعي السنوي كما نشكر كل الذين وقفوا وقفوا معنا من قريب أو بعيد وقدموا إلينا عونا معنويا أو ماديا مما ساعد في إنجاح الحدث على هذا الوجه الأحسن والأكمل wa jasaakum allahu xayra aljasaai wa jasaa alxayri wa thani wa thaniyan tatadammanu alkalima tazkiran bi maxza haasa alixtifa allati nuxallidu bihi zikra alxaybati albahriya li cheikhina ahmad alqadim qaddasa allahu ruuhahu allati laaqa xilaalaha mixanan jalila natijat anha minahun jamila awjabat ala alabdi alxadim muqaabalat al ixsaani bil ixsaan min xilaali adaabi waajibi shukri lillahi taala ala nicmati al ibtilaai addaalli ala al ixtiyaari wal ishtifaa iza araada allahu bi abdihi xayran ibtalaahu fal xersu tajziidun li waajibi shukri axadi maqaamaati al yaqiin kama annahu tanfiisun li amri llahi taala al qaa'il washkuruu lii wa laa takfuruun. Thaalisan وأخيرا تتضمن الكلمة توجيها للموردين ونصيحة للمسلمين على ضرورة التقيد بتعاليم الإسلام وفق ما قرره الشيخ أحمد القديم رضي الله عنه في آخر كلمة له إلى الناس سماها أمين سره الشيخ محمد أمين جب أدغني بخطبة ومسس قال فيها الشيخ رضي الله عنه عليكم بتوجيه نظركم وهممكم إلى المسألتين أن تعلموا ما أمرتم به وتفعلوا وتعلموا ما نهيتم عنه وتنتهوا وشدوا أيديكم على هاتين المسألتين فإنهما علوم الأولين والآخرين يعني بالعمل بمقتضاهما سبخ من سبخ وفضل من فضل من الأولين والآخرين ثم قال واجتهدوا في الصلوات الخمس والصدقة والدعاء ولأهمية هذه الوصية الخديمية الأخيرة فإن الشيخ محمد المنتقى حفظه الله يذكر الجميع بها ويحثكم عليها ففيها أسباب السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة وتتلخص في أمرين اثنين هما العلم النافع والعمل الصالح ولا بد معهما من الأدب المرضي الذي يكسبهما الكمال والقبول فاحرصوا عليها تعتنموا وتنجوا وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ci ndigalal sëriñ bi Cheikh Mouhamadou Mountakha al xalifatul aam lil muridiyya ñu ñaan suñu borom bàyyi ko fi lu yàgg lool tam ànd ak wér ba mboolem naal yu rëy yi nga xam ne am na ko ci lislaam am ko ci liggéey Sëriñ Tuubaa suñu borom may ko kàttan ko wér mu yàgg fi ndax ndamu lislaam jëpp la sagu yoon muur bépp la ñëpp a koy maase di ko ñaaral taxawaayam suñu borom bàyyi ko fi lu yàgg lool tam ànd ak wér ñuy ci ci ndigalam ak kàddoom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 la ci jiitu mooy ñi mu seqal diine lislaam ci àdduna sépp rawatina ñi mu bokkal réew mi rawatina ñi mu sañ a digal sañ leen a tere mooy ñi mu bokkal yoonu murit li jiitu ci kàddu yi rek moo di cant goo xam ne sëriñ bi nee bi mi leen koy sant yéen mboolem kilifa yi fi teewal këri diine yi tañu ñu bokkoo moom noonu li ak mboolem mbooloo yi wuy ci tur lislaam ñëpp délégation yi bàyyi ko ci biir réew mi ak yi bàyyi ko bitim réew ne yàlla suñu borom wax ci alxuraan ne innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum te mooy xamanu nu julli yëpp ne julli dégg dëgg-dëgg mooy ki mu bokkal diine lislaam mi ngi seddal ñëpp ne dundal ngeen bokk googu seen diggante njabootu Sëriñ Tuubaa gi ci la mu gën a rafet kon yàlla na yàlla fay gën pay te musal nu ci lu nu bokk ak li nu boole ba seytaane bañ ci am yoon ginnaaw loolu yéen délégation bi fi teewal njiital réew mi président Macky Sall ci njiital ministre intérieur Aly Ngouille Ndiaye ak mboolem ministère yi mu àndal ak mboolem délégation ak chef de service yëpp ñi fi teewal ak mboolem ñi fi teewal bànqaas yi fond réew sëriñ bi nee na mi ngi leen di yóbbante ay cant ak i ngërëm ci président ci taxawaayam bu ma sëkk bu ma taxaw ci digg ba moom digal ko it mboolem ay jërëm ñu taxawee ko ci màggal gi nee na mi koy ñaanal yàlla mu jàppale ko dolli ko kattan ak man-man boo mën a àggale mboolem ay naalam ci réew mi waxaa dama bii ci guddi ne ma nee ko ak cant ak ngërëm képp laa ko amel ak xamal ko ne ko la ma ko waxoon ko tàmbali damaa ñaan nee na fas na yéene ñaanal ko ba mboolem lim yéen ci réew mi yàlla mottali ko hmm? di beral nuyoo ministre intérieur Aly Ngouille Ndiaye moom mi nga xam ne moom la président tegoon joxoon ndigal mooy saytu ak a mboolem lu aju ci màggal gi sëriñ bi koy nuyu di ko sant di ko gërëm ak mboolem ñu seqoon liggéey bi ci seen taxawaay ci màggal gi yéen ambassadeur ak mboolem membre corps diplomatique yi fi teew sëriñ bi nee na mi ngi leen duyu te leen sant ci seenu teewaay ak ci seen taxawaay ci lépp luy sàmm ak rafetal diggante Sénégal ak seeni réew yi ngeen fi teewal yéen ñi fi teewal parti politique yi yi newul ci biir nguur gi ak ñi fi teewal mboolem mbooloo yi taxaw askan wi sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant ci seen jëf ci màggal gi ak seenu teewaay di nuyu mboolem mber mboolem presse ak média yi fi teew yëpp ci seen liggéey ci màggal gi di sant di gërëm bu baax bokk taalibe yi nga xam ne rek ñoo wuyu si ndigalu Serigne Touba li mu joxe woon ci bis bii ñu doon dundal mooy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar mu sàkk woon ñu sant la ko ci yàlla ci xeewal yu rëy yu bari yi koy dikkee te sabab woon ci tukki gi bi tàmbali woon ci bis bii doonoon nattu boo xam ne ay xéewal rek la jur. kam min ni'matin fii tey niqma ginnaaw loolu nag sëriñ bi nee mi ngi dellu si ak noonu ci kàddu yu fàttali ak soñña yi mu baaxoo yëkkati ci jataay bii jëme ko ci ñu bokkal diine lislaam ak kàddu yoo xam ne mi ngi ko beral ñi mu seq réew yi lu jiitu muy yegsi ci li mu war a wax ak njabootu yoonu mbir te mooy ñi mu sañ a digal sañ leen tere sëriñ bi wax na ne mi ngi sàkku ci yéen njabootu lislaam gépp rawat na yéen ñi yàlla teg ci kanam mbooloo yi ñu ànd feddiluwaat suñuy laxasaay yokk suñu yitte bu baax ci sàmm ak aar ndono li nga xam ne moom la fi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi te suñu kilifa yu baax yi doon ko wattu di ko sàmm ñu bàyyi xel bu baax ci mboolem li jug ngir xajama ndono loolu ak gàllankoor ko njabootu lislaam gi bëgg dund seen diine ak di ko dëgëral rawatina lu ñuy bind ak lu ñuy wax di ko jaarale ci média yi mu wax ne lii du soppeeku gu am tey ci doxinu jamono ak yàqu-yàqu yi mu àndale tax na ñu bari jàpp nañu ne waruñoo am kilifa moo tax nu wara a feddali suñuy laxasaay te jëme suñu yitte ci jàngal ndaw ñi ak yar leen yarub diina boole ca dina leen taxawu sunu kem kattan ci lépp lu nu man yeen ndaw ñi itam sëriñ bi nee na mi ngi leen di soññ ci ngeen gën a farlu bu baax ci sàkku xam-xam ak melokaanu yu baax yi ab jullit war a yor te boole ca tàggat seen bopp bu baax ci jaamu yàlla ak liggéey ngir mën a am lu ngeen mën a sukkandikoo ba mën a sàmm seen ngor ak seen diine mi ngi leen di digal itam képp ku seen kilifa ngeen war maal ko te jox ko cër kilifteef yéen ñi mu bokk réew mi nag rawatina njabootu lislaam bi mi ngi nuy digal li ñu yombal at ayush asim yi te loolu mooy nun ñi yàlla tànn réew mi nu bokk dëkk te nu war a nangu dogalub yàlla boobu ci ànd boole suñuy pexe ak sunu man-man jëme ko ci luy aar sunu réew mi di fa saxal jàmm aku dal di yokki naataange ak xiiwali te loolu la ci jiito ci lanu koy may mooy la aju ci wàllu diine kenn ku rek jàpp ca la doy ak li nga gëm te maandu ci pas-pas ak la keneen gëm yàlla wax na rasulullahi sallallahu alayhi wa ne ko su ma sooboon ma far su mboolem nit ñi ma far su mboolem ñi ñu gëm diine jiima la jox mu lislaam kon bu leen jéem a forcé mukk walaw shaa rabbuka la amana man fi l ardi kulluhum jamian afa anta tukrihu nnaasa xatta yakunu muminin wax na itam ak jul ne leen ñereer ba ay rab ak doj def leen seeni yàlla yu ñuy jaamu sax bu leen jëmee wax ju ñaaw ci ci loolee ñu gëm ndax bu ngeen ko defee ñu delloo ma ko jëmee wax ju ñaaw ci man wala tasubbu lazina yad'una min dunillahi fa yasubbu llaha adwan bi xayri ilmin waxaat na ak jul yi ne leen ñi ngeen dëkkal te bokk leen diine waaye xatalu ñu leen bundu xataalu ñu leen terewuma leen ngeen di jëflante ak ñoom ci njëkk ak teraanga ak ngeen maandu ak doxal ci lu ngeen seq laa yanhaakum allahu an allazina lam yuqaatilukum fi diin wa lam min diyaarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim wa inna allaha yuhibbul muqsitin Seexul màgg bii nu fi dajale ku julib ne ko ku dib julib ne ko waraa fii kulli xalqin xaqa man xalaqa te nu sàmm ak yàlla ci mboole mbindeef yi ci di war maa ñëpp ak moytoo jëmee ci ñoom dara lu ñaaw njàngale islam njàngaleem lislaam nii nag Cheikh mu Mountakha wax na ne sunu maasee ànd jëfe ko dana nu dëkk dëkkin bu rafet jàmm rek mooy dox sunu diggante sëriñ bi wax na ne yéen njabootu yoonu murit nag ginnaaw bu ngeen tàbbee ci mboolem kàddu yu fàttali yi jiitu yépp mi ngi ñëw mi ngi ne ñëw ngir fàttali leen li ci jiitu mi ngi ñëw ngir ber leen seen waaru bopp ci biir fàttali ak soññ bi nee na mi ngi dugal digal nu maase yeesalaat suñuy pësteef ak suñuy laxasaay ci lépp luy aar ak a sàmm yoonu fii Sëriñ Tuubaa bàyyi te jiitu ca loola mooy nuy moytu lépp lu mën a tilimal wala muy gàkkal derb yoon wi foofu waaye mën a nekk te na farlu bu baax ci jàmm yàlla mi tax yàlla suñu borom bindu te nu góorgóorlu bu baax ci liggéey Sëriñ Tuubaa ci suñu doole ak suñuy alal ak suñuy xam-xam ba lépp lu mu nisoroon ba fàggoon na ko ba ñaan ko suñu borom ba may ko ñu góorgóorlu ca fexe ba loolu ñu gàttandu ko kon sëriñ bi nee na ci biir loolu nag mi ngi sant bu baax taalibe ci le xew bu yàggul ci mbiru Masaalikul Jinaan waaye loolu nag muy loo xam ne naka jekk ñoo xam ne njàmbaaru murid yi foofu la nekk ndax ba Cheikhul Xadim di woote jumaa njaareem ja di ko liggéey pëstéef boobu lañ ci wane woon ginnaaw bu sëriñ bi ñibbi seetu waaye itam képp ku fi ko fi mas a nekkal tàmbalee ci Cheikh Mouhamadou Moustapha taxawaay boobu la amoon ci bi muy fondement jumaa ji ak bi muy indi raay bi ginnaaw taxawaay boobu la amoon ginnaaw bi tam Cheikh Abdoul Ahad taxawaay boobu la amoon ginnaaw bi tam Cheikh Abdoul Khadir taxawaay boobu la am biñ demee ba bàyyi ko fii itam nag. suñ borom wane kiimaan bu gën a rëy ndax bi Cheikh Mouhoud Baar Cheikh Mouhoud Lamine Baar Mbacke accès ñu wane ñëpp ne mbirum Sëriñ Tuubaa mu ne kanam lay gën a jëm moom bi taxawaay boobu dam ginnaawam bi tam ak Cheikh taxawaay boobu la am li ci mujj mooy liggéeyu Masaliku Jinaan bi loolee tam rek nag Cheikh Mouhoud Mountakha mi loolu la wane waat ci liggéey bi muy bëgg a tàmbali muy université bi kon sëriñ bi. ñi ngi ñaan ci barkeb Serigne Touba ni mu ko tàmbalee yàlla na sotti ci ay loxoom ba ubbi ko kon Serigne bi neena na mi ngi sant taalibe yëpp di leen gërëm bu baax a baax di yeesalaat nag ndigal li mu joxe woon ci daare Cheikhul Khadim jooju di ci sant kii dafay yombi ci seen taxawaay ak jëf ju am solo ji nga xam ne jëf nañ ko ci liggéey bi kenn ku ci ne def ci yitte def ci poste def ci taxawaay ba jëf ci loo xam ne def na la ma def lu mu waaye nag sëriñ bi nee na nañ xam ne liggéey moom li fi aggude ndigalu ndigalu di jeex te liggéey sëriñ Tuubaa du ñu wàcc mukk kon nag nee na mi ngi ci soññ taal bi yëpp ñëpp góorgóorlu waa ci xam ne kenn ku ci ne positif boo ci amoon daaw la nga yeesaat ko ginnaaw bu loolu jàllee itam nag mu ngi sant taalibe yi dëkk ci dëkk bi ak mboolem taalibe yi taalibe yi dëkku ci dëkk bi ci tere yi nga xam ne yàlla suñu borom da koo tere woon euh, rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam andi ko sëriñ Tuubaa ko moom mu ñëwaat ci jamono Cheikh Abdoul Ahad mu tere ko ci dëkk bi Cheikh Mamadou Mountakha ñëw salaat ko mu ngi ci sant taalibe bi yëpp ndax yëg na ni ñëpp maase nañ ci xam ne seen njariñ la ñu jëfe ko mi ngi leen ñaar bu baax li borom digal ci ku jëfe ndigal ci yow kon nag mi ngi yeesalaat eh, tere yooyu ci warma ji ñu war a jox dëkk bi nee na nag lu jëm ci kàddu yu ñaaw ak pexe yu njoonu yi nga xam ne ñu jublu Serigne Touba ak yoona bi ñu ngi koy yëkkati saa su ne di ko ci kilifa yi ak ci jëmu yoone ngir bëgg yee na sëriñ bi mu ngi nuy digal nu jëf ñuy jëflanteeg ak ñiy def loolu ci anam ga Sëriñ Tuubaa doon jëflanteeg ay noonam te loolu mooy bindu alxuraan bii di wala tastawi alxasanatu wala sayyiatu idfa billati hiya ahsan fa iza lisi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyun hamim wa maa yulaqaaha illa allazina sabaru wa maa yulaqaaha illa zu hazzin azim te loolu moo di nit ki def la lu ban wala mu wax la lu ñaaw nga fayoonte moom ci def ko wala wax ko lu ñaaw yëmu la mukk nga bàyyi ko yàlla te bañ koo topp yàlla suñ boom moo tax mu wax ne idfa billati hiya ahsan te mooy ku la le ku la lebal lu ñaaw fay ko lu rafet waaye nag du lu yomb ndax ku yaatu ëb dënn doon ko mën muy rek mooy am tawféex jooju jëfe ko moo a suñu borom wax ne maa yulaqaaha illa lazina sabaru maa yulaqaaha illa zu hazzin waaye ku ngeen gis mu mas am cër cër bu rëy ci sàmm def ndigal lool bokk na ci la ko may te li ciy firnde rek borom barab bu tëdd bii di Cheikh Al Khadim firnde ci loolu ndax ginnaaw bu mu bàyyi ko ci tukki ci tukki ba ci nattu yu réyam yooyu ba mu assee rek dafa daal di jël xalifa wax ne afawtu an il aadai turan li wacci man nafaahum li xayri sarmadan lastu adfahu dafa wax ne jéggal naa samay noonu yëpp ba ñoo jeexal na kon ñoo leeral tuuti ci ne Serigne Touba yeesale tasawuf sunu sukkandikoo ci wax ak bindu bo bindu borom xam-xam yu dund ak Serigne bi ak ñi ko siyaare si ci jamono bàyyi ko ci mbooleem réewu arab yi daanu am lu wér ci ne ñoom ñëpp ñoo bokk nu ñu gisee Serigne Touba ak wàccuwaayam ñëpp maase nañu wax ne. liggéey bu bi sëriñ bi liggéey yàlla ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak doomu aadama ci toolu lislaam bokk na ci kiimaan yi gën a màgg ci taarixu lislaam am na boroom xam-xam bu màgg ci réew Misra ñu di ko wax ak Seexu Muhammad Xaalid Thabit wax na ci téereem bi mu tuddee aqtaabul umma fil qarnil asiin wax na ne ñi gën a màgg ci kàngami lislaam yi ci qarnul asiin Sëriñ Tuubaa bokk na ci ci diggante 1913 ak 1915 commandant de bi nekkoon Diourbel doon saytu ak contrôle mbirum sëriñ bi ñu di ko wax Antoine Leslie moo daan xotti sàkkiti njere bi ngir bett sëriñ bi ba xam ci lu mu nekk dafa bind rapport wax ne jëmm ji ñuy wax Cheikh Ahmadou Bamba jëmm la joo xam ne mbootam kenn mënu koo xam te leer na ma yit ne yonente yi weesu ak awliya yu ñoom ñëpp jihaad nañ ci yoonu yàlla waaye biir na ma ne genn wàll doole ji yàlla jox Serigne Touba borom xam-xam ñëw doon dund yi doon dund ak Serigne Touba ci réew Mauritanie itam taalif nañ lu bari ci sëñ bi wax nañ ne mbiru Serigne Touba kenn mënu koo xam ndax bu ko kenn mënoon xam ñun waa Mauritanie ñoo ko xam te mënuñ ko xam ayal wara fahmuma li cheikhi min madadin law kaanu yufhamu maanaahu fahimnaahu awlaahu mawlaahu ma awlaahu min rutabin lillahi wallahi ma awlaahu mawlaahu ku ñu wax cheikh ku ñu wax cheikh ahmadul xasani nee na li ñu gis te man ko wax ci mbirum Sëriñ Tuubaa moo di ne cheikh ahmadou bamba jëmmula ji yéeme joo xam ne fa wilaaya awliya yu yame yam la déparé xuus yoon wu kenn mësula jaar wutali boroom tonosub mboolem mbindeef yi yàlla teg na ko ci loxom zimaamul wara asila dallahi fi yadi wa ma rumtuhu min maliki qaada bil falaw kaana bahda alhaachimiyi muhammadi nabiyun la xultu cheikha ahmada xaadima lahu saxara allahu alawalima kullaha ala rahmi anfi min xaribin wa ajnabi bi mu nekkee njaarim waa réewum iraq ak syrie ak makka ak madinatul munawara ak tunis ak aljazair ñoom ñëpp ñëw nañ siyaare si Serigne Touba ak Maroc ne ko Cheikh Ahmadou nu Baba Chérif maa ngi maa ngi jéggalu kat ndax bi may dem dama fàtte sunu jàmbaar ja Cheikh Saliou mbake nga xam ne li ñuy wax taqdimul mutaaxir la ndax Serigne Touba dafa wane ci moom xar dafa wax ne ci biir nooru daalen te ku ne xam ne ne ak xasida mu woon maxasa maa salaami li yusaxihu al amal assaaliha allasi yukammilu al amal Serigne Touba dafa wane woon ne daanaka dafa war a ci Serigne Serigne Saliou mooy tëj sama mbir kon ku ñuy wax ak Cheikh nu Baba Chérif ni mu ko nettalee ci ay waxam dafa wax ne min achaami jaatu lufuud wa makkata wa min taybata jaat wa jaatu min misra wa jaatu min faas aljadidi wa garbihi wa min tanjata jaa wa min tunus alxadra tara sukkaana tara sukkaana makkata wal animi li ajli cheikhi taskunu bi jaarimu kon yi dara gënu ko wóor ci ay seere ku ñu wax a cheikh Mouhamad al Kunti dafa wax ne Serigne Touba li tax nasaraan yi génn ko réew mi ngir sànke ko moo de dafa gaaral mboolem awliya yi ak xutb yi wàccuwaay wu màgg woo xam ne kenn mënu koo am loolu ñu teg ko nattu yi gën a tis ci mboolem nattu yi waaye kenn nungu ko tegoo ci ñoom ñëpp Serigne Touba rek moo jug taxaw jaayante ak boroomam ngir tege ko natt yooyu nag yàlla da ko jaarale ci loxo tubaab yi ngir ñu teg ko ko waaye dana dellusi si ci réew ci réew mi ak maqaama yoo xam ne yàlla dana teg nosum mbindeef yi ci loxoom loolu Cheikh Mahamadou Bachir indi na ko ci minal baaxal xadim moo tax Sëriñ Saliou daa wax ne tubaab yi bu seen yéene selloon mbool lu taalib yi am ci tuyaaba ko am ndax mboolem lu Sëriñ Tuubaa rek ci seen loxo da jaar lii borom xam-xam yi wax ci wàccuwaayam ak wàccuwaay wi ñu ko jox sëriñ bi àdduna ci ci ay taalifam ci ay taalifam mu wax ne mbindeef mu yàlla sàkk mënu ko xam ku du rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mi ko doon mi doon liggéeyal ak yàlla sunu borom mi ko sàkk ci moom def ko muy kiimaan ci kiimaan yi moom yàlla mi nga xam ne moo wax ne wa yaxluqu maa laa ta'lamuun loolu nag bu ngeen déggee Sëriñ Tuubaa di ko wax mooy wa ammaa bi ni'mati rabbika fa haddis qultu wa xasdi tahaddusun bi ma lii qaadahu wala yurini niqama mu dellu waxaat ne yàlla sunu borom moo jël ci sañ-sañam def ko muy xar baax bu mu jëntal ci xar baax yi yonente bi sallallahu alayhi ngir mu lëggéeyal ko mottali ci bindeef yi yërmaane ji taxoon yàlla suñu borom bind ko baana li kulli man lahu wilaaya kaw nii li xaalixil baraaya aaya raama rasulullahi min ilahi kaw nii xadimahu abdullahi kulliyati mujisatun taaxarat wa xayru xayraatin ladayka duxir Serigne Touba aw doxalinam rek ci xeex bakkan ndax bi mu dikkee daaw soobu yoonu ak tasawufu suluki te mooy tasawuf bi dëppoo ak jikko ak liggéey ak doxalin social jubli ci yeesalaat xam-xam tasawuf loolu moo tax li mu jëkk def moo di jub jubbantiwaat li ñenn rek ñoom doon doxee te mooy ñi tënku ci julli ak woor ak azaka ak aj màkka te bàyyi liggéey bàyyi jàng ak jàngale waaye Serigne Touba bi mu dikkee daa ci ci njàngaleem ngir nu xam ne arkaanul islam yi bokkul ak islam ki ne keno yenn tabax bi bokkul ak tabax bi ci boppam julli ak woor ak asaka ay keno la tabax bi mooy islam mooy jëf ji ak kërkër ji ji lépp luy jagal àdduna bi dala ko ci ashhadu an laa ilaha illallah ba ci xettali ab soccet walaru wala ma mu mar a naan listaan kon jëmb la ak comportement ak jikko ak yërmaade irham uxayya jamiixal xalqi kullihim wantur ilayhim bi ayni lutfi wa shafaqa fa tarku kasbin a tawakkuli maa iltifaafin fi udu xumrin anjali gis-gis bii nag moo war a Sëriñ Tuubaa yaatalaat doxaleen yu suuf yanke daa xeexe bakkan te ku ne xam na ne xeex bakkan te mooy jihaadu nafsi mooy fondement tasawuf ndax murit mënula am wusul fii xeexula bakkanam ba ko waaye méthode ba ñu daa xeex bakkan lu jiitu sëriñ bi weesuutoon génn bu baax ci ci société bi ngir génn ko adduna bi ba dootu mën a gis bànneex waxuma daa di ko jëf mbaa mu koy dund sëriñ bi nag bi mu dikkee daa gis daa gis na yoon wi gën a dëppook alxuraan ak sunna ci xeex bakkan moo di nga sëf ko adduna ak i tiisam ak i coonaam su ko defee tàggat ko ci mu yanu ko yar ko ci muñ coono diisaay bi doo ko dawale coono yi waaye day jànkoonteeg adduna bi ba du tal bànneex huwa anshaakum min al ardi wastamarakum fiha yàlla dafa sant doomu adama mu taxaw temm ci tabax adduna bi aar ko lu fi baax mu sàmm ko gën koo baaxal lu jagul mu jagal ko ba dara du yàqu te loolu moo loolu du mën a nekk lu dul liggéey moo tax sëriñ bi bi nammee mu feeñ ngir liggéey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dafa bàyyi ba diine tumuranke lool jaaxle lool mu doo koo feeñal ndax sallallahu alayhi wa bi muy door ci tumuranke la dooree bada al islaamu xariban wa shayudu xariban fa tuuba lil xuraba te day te day delluwaat ci tumuranke kéefar mbaax suufe seytaane jël tubaab yi roof ay pexem ngir yàq rékki gëm-gëm ni ko Sëriñ Tuubaa waxee ci téeram bi ñuy wax ilhamu salaam fi zabbi an diini islam nga xam ne wane na fa bu baax fi adduna bi tolloon ci jamono yi muy feeñ ni yéefar yi yilife woon adduna bi ak ni ñu doon yàqe positif yi ak jikko yi ak ni ñu doon doxee diggante nit ñi ak seen borom mu wax ne wa baadu fal majuusu wa nasara saaroo li iblis al xawi usara xata xada ka annahum sukara wa rayuhum fi xatfihim qaddara wa lil ana qaiduhum qad saara wa rafahum ila nxifaadin sara yarsawna fi leyli wa fi nahaari li jaalibin li xaribil ijabaari nee na jamono ji mu feeñe yéefar yi ak nasaraan la Iblis jël def leen jumtukaay yi muy xeex diine moo tax mu jël leen def leen ay prisonniers ñu mel ne ñu màndi mbaa ñu tàggoog seen sago seen xalaat yëpp jëmewu jëw jëmewu ñu ko fudul ci lu leen di alak ak luy lor mbindeef yi Iblis jël jël leen wammat leen jëme leen ci leen lor moo tax civilisation bi nga tabax bépp ci mabbu rekk la mujj wa rafahum ilan xifaadin sara nee na fekk muy guddi muy bëccëg du ñu dox ci lu dul luy sabab mbirum yàlla seen dundu géppit dañu koy sànq ci luy mel luy mel luy merloo yàlla wala iyaasu billahi taala wa jarrahum iblisu lil isyaani wali tajarrui wala xusraani iblis jël leen di leen waxtu ne jëmm leen ci mooy ak féttirlu ak alkani ak pertange tey ak ëllëg neen lu àddina bi bi mu àddina bépp topp leen ci mooy yàlla ak jikko yu ñaaw yi ñu fi andi wa taawaahum fi zina wa sarixa wa xeyri zeynin min fi alil fasaxa nee am ñu leen jàppe ay yàlla mbaa ñu leen ne wàcce wàccuwaayu malaayika yi wa minhum min min an raa nasrani yasibhu min malaayika rahmani wa baadahum qad nasiyal jalila li xawfihim wa nasiya rasula nee na am na ci ñoo xam ne dañoo fërjël seen mbir yëpp jébbal tubaab yi fàtte yàlla sàggane jaamu yàlla wa minhum man xarrahu nasara bi wasfihi xatta alfuadu xaara wa yunsibu sun allazi ajrahu fihim ilahu alxalqi ijdahahu lahum wa yactaqidu anna alxawla wa quwata alfili lahum wa tula lii la seetaane jële tubaab yi di fawe ak a jay ni ko sëriñ bi waxe moo tax mu jël mbooleem pas-pas ak xalaat yi yàq yëpp di leen ko sol ngir jàllale ko ci nit ñi wa inna shayatina la yuxuuna ila awliyahim li yujadilukum wa in ataatumuhuma innakum la boo ko na ci ngànnaayu seytaan yi gën a màgg yi mu doon yàq jamono li naa naan liberté seytaane jël ko def ko ci xel seeni falasifa ak borom xam-xam ñu ci xalaat ak théorie ba jël ko mu féete kaw diine yëpp ak pas-pas yëpp ba àgg ci bëgg jël nit def ko palaasu yàlla Serigne Touba bi mu ñëwee dafa jël mboolem xalaat yooyu yëpp dajji sànni ci àll ba delloo na ñi ci dëgg dëgg nature doomu aadama te mooy doon jaamu yàlla bu ñu delloo ci mbind sëriñ bi danañ gis muy leeral dëgg dëgg liberté nee na wa xaqiqatul xurri man laa yacbudu dunia wala nafsa wala alhawa wala alayn fa huwa xiina isin sadruhu قبور الأنوار والحكمة والأسرار والبركات وخيور الدنيا والآخرة فمن ظن أنه عبد هنا فهو فهنالك حر ومالك ومالك وآكل ومالك وآكل ومن ظن أنه حر هنا فهو هنالك عبد ومملوك ومأكول nee na liberté dëgg-dëgg mooy fexe ba moom sa bopp nee na doon nangu leen loolu yàlla yilif la adduna du la moom bakkan du la moom bànneex du la moom saytaan du la moom nee na ku faxe ba ñeenti yi lenn moom la ci kon man ngaa jàpp ne ci dëgg-dëgg am nga liberté nee na maqaam boobu ku fa àgg yàlla day jël sa xol duy koo ci leer ba mu fees def ci xikam ak i mbóot ak barke ak njëriñu àdduna ak laaxira sëriñ sëriñ Tuubaa teg ci ne ku gëm ne adduna bi danga fee war doon jaamu yàlla dañu laa war a yilif boo léegi da gore am sa liberté di def loo neex bu ëllëgee it dis ko jël xabaar ko ci buum jàll sànni ko sawar mu lekk ko wala yaasu billahi taala sëriñ bi waxaan na ci mbindam leeral maanaam doon doon jaamu yàlla ak moom sa muy liberté nee na maa thamma illa abdaani abdun yaalamu annahu abdun wa abdun yadunnu annahu xurrun ila axirihi nee ñaar ñi ñoo fi ne jaam bu xam boppam xam ne ak jaam rekk la ak njàmm bu bañ jàpp na daa am liberté mu ne ku jëkk ki nga xam ne daa xam boppam jàpp boppam jaamu yàlla bu bu tax mu nangoo jaamu boroomam di def yi ndigalam di bàyyi etreem yooyu muy taxool mooy wuññi ay kiiraayam ju doxaan diggante xolom ak àjjana ak ci melukaanam bu ko defee xetuk àjjana tàmbali ko xeeñ ak xéwalam te daru doxati diggante loolu ak xolam bu ko defee xolam day daal di buur jëm ci ay cërëmi sawar lool ci topp ko ci jàmm yàlla ba dootu tayyati mukk ca noona lay sax ba dee ñëw fekk ko ci xaal bu boobaa nag la nit ki mën a jàpp ne boppam dëgg-dëgg ku libre sañ def ko neex sañ lu ko neex sañ a jëriñu neex ci àjjana mu ne ki ci jàpp ne moom moom boppam daa libre ba lu ko neex def kooku bu ko xetuk àjjana di upp sax du ko yëg ngir bàkkaar yi muy def ak bànneex yi muy topp ñooy rey xolam ba du ko yëg boo koy xemeem naka noonu bu ko tàngoor sawre di ubbit du ci yëg dara ngir bànneex ak bakkaar yi mu noor ñooy téye xolam du yëgate dara tàngoor ak xet yi ba di ko daw ci noonu lay nekke ba ba dee ñëw fekk ko muy nuur ci bàkkaar mu dekkee sawra ñu yow ko mu jàmm ak alkane ñu sànni ko sawru mu ko wala yaasu billahi loolu mooy li yàlla di wax ci wax yàlla di wax ci alxuraan ne innal abraar la fi naimin wa innal fujjaar la fi jamin sëriñ bi nee na ñoo ñooy al abraar yi la fi naim wa innal fujjaar la fi jahim nee jaam yi nanguwul ak jaam ak jaam waxum yastarixoona fiiha moo tax sëriñ Tuubaa bi mu ñëwee dafa jël mbubbum yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ashafii mooy tazilu ma sabata lil musafai ax naa yamini an izan umid fay tolo mooy mbubum ramu ak xettile moo tax sallallahu alayhi jox ko mbóot ak saafara yémën a saafara raggi jamonoom lool moo tax bi mu ñëwee mënoon naa fetal jihaar jàmmarloog noonu yàlla yi waaye ngànnaay saahir ku ko yëkkati loo fexe ba am ko ci booy wér ngànnaay loola dellu si moo tax sëriñ Tuubaa ngànnaay tarbiya ak defar ruu yi ak xel yi ak xol la jaar ba taxawal li mu taxawal taxaw ba taxawal li mu taxawal moo tax mu wax ne sama liggéey bi ma doon liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi ma ca noppee yàlla defal na ma yàlla fay fayal na ma boppam rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fayal na ma boppam moo tax li ma bëggoon lépp ma am ko farraxani kawni bila akdari fi haasihi daari wa tilka daari dayfal karimi wal jamili wal udud rabbil wara wa bi yukarrimul judud nee na yàlla xamal na ma ne li des ci may dund ci àdduna ba àllaaxira gànnug yàlla laa laay doon yàlla nag li mu may terale mooy turamu yu mag al di alkami karimu aljamilu alwadu rabbul wara te li mu may defal ñëpp a ci xaj ba ca maam ya nee na li ko yàlla fayee kenn du ci ëppale ay taalibeem yi aju ci moom moo tax mu wax ne allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina mawlana muhammad wa alihi wa sahbihi wa wajjih ila kulli man taallaqa bi barakaati qawlika wa ma kaana allahu li yudiia imaanakum amin ya rabbal alamin yow yàlla sunu borom maa ngi la ñaan nga julli ci yonent bi di la nga defal mbooti ñi aju ci man barke ak mbooti laay jiidi wa ma kaana allahu li yudiia imaanakum yàlla ëpp na foofu di ta yakaar yaakaar yow yàlla mi nga xam ne yaa ma may lépp ixfir bi jaahil Moustapha lu kulli man ahabbani li wacci maliki zaman nee na maa ngi ñaan yàlla képp ku ma bëgg te yàlla tax yàlla jéggal say bakkaar naafiu bin fax kulla man taallaqa yaa man hadaani bin nabi wa atlaqa nee na maa ngi ñaan yàlla képp koo ku ñëw fi man di yaakaar sutura sutura àdduna àllaaxe yàlla may la àjjana ji gën a kawe ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam layyantali bil mustafa al xuluba wali bukun tuwassilul matluba yaa rabbi ijaalil muridina maa fi xisnika al xasini wa chamla maa nee na yow yàlla maa ngi leen ñaan sama taalibu yëpp nga boole leen làqal ma leen ci satatay yu say yi yàq mënula àgg maa ngi ñaan nga boole seeni xol ba bu leen dara ma defee wale malik jamiihum nufuusuhum bila sa injatu ma masaa'i aqbala nee maa ngi ñaan yàlla képp ko aju ci man yàlla natoon la sa bakkan defaral la ko ba mu jag tegu ci yoon te dara luy lore bañ laa jege ixfir li kulli man ilayya maala wa an yadayhi laa tusaxsih maala nee na maa ngi ñaan yàlla képp ku ma wutsi jëm ci man yàlla jéggale say bakkaar say loxo yàlla saxal ci ay xéewal ak alal ju raw nafaatani fanfa bi al iyaala yaa man xawal ay wal aqyaala nee na yow yàlla jariñ nga maa ngi lay ñaan ni nga ma jëriñe nga jëriñu ko sama njaboot gi ak sama taalibe yow mi xam ne yow mi nga xam ne yaa moom buur yi ak kàngam yi allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina mawlana muhammadin wa ala wa sahbihi wajhal qasidati haasihi xisnan xasinan lu kulli man taalaqa bi min annaasi ajmain kon ñu tëje ko fi ko Sëriñ Tuubaa tëje te julli ci Yonent bi sallallahu alayhi sallam ak ñaan gi ñu ñu doon jàng mu doon tata ak ci képp ku aju ci sëriñ bi ci àdduna ak kon mboolem ñu doon ñëw te seen bakkan décision itam bi na ci biir wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ah, sëriñ xaali euh, jërëjëf sëriñ bi am na solo lool am na solo am na solo ndax kat euh, euh, da leen tëjël Aliou Aliou Aliou Ngouye Ndiaye Basir yëkkati yëkkati kàddu yi am solo turu Cheikh Mouhamadou Mountakha ay kàddu yoo xamante ni nag te ko daana ko fi xaj ndax kilifa boo xee ba noppi nga di ko saraa sax daanaka mën naa nuru leneen waaye daal soññi ne taalibe yi kenn ku nekk nga respecté sa morom ndax amul kenn koo xamante ni boo xam ne lillaahi alhamdulilah zurul na yàlla subhanahu wa taala ñu ñaan fu waay mën a toll rek dëkkal sa loxo te ni amin bi jaahi muhammad sallallahu alayhi wa sallam cheikh mahmadul muntaqa moom cheikh mahamad bachir cheikh alxadim alxalifatul am taifatul muridiya murid sadiq bi mooy ñaan ñaan gi nga xamante